بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد الذي يثني على غير ملهم ولا يشتكي للخلق من فقد أنهم ومن سلني من ah ñun moom dañ see kontaan trop moom te ñuy ñaan yàlla na dem ba am bag ba ñëw fii di fi jàngee di sant suñu taxaw baax ndax li mu defar tamit neex na trop ndam lu rëy la si yoonu murit waaw loolu dañ see kontaan. ñu ngi kontaan moom yàkkamti woon nañ ko trop sax waaw. ah loolu ñu ngi si am contentement bu baax ndax parce que ñun taalibe Sëñ Tuubaa yi mhm. ñun ah, ñun daal ay ay lii lañ daal ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ waaw ndax lii buñ ko gisee de suñu xol yi yëpp a sedd. tey ñaanal Serigne Mountakha Mbacké suñu borom te bëgg a wér ak ku kàttan mu yàgg liggéey liggéey naa la Serigne Touba mu yeggale ko ci jàmm ak salaam tan ànd koog moom. Serigne Mountakha moom liñ ci mën a wax lépp bari na ku ci doon wax fii ba suba doo jeexal liñ ciy wax daal mooy di ko ñaanal rek. yàlla nañ ko Serigne Touba Mbacke tëbbal ak wér ku kàttan mu gudd fan te ànd ko wér dañ ànd koog mu yàgg a liggéeyal Serigne ñu ànd koog maam moom ci barke Seexu Xadim université bi nag boo xoolee daanaka day delluwaat ci biir élèves rek ndax sëñ bi bi mu ko tabaxee tabaxalul ko élèves yi nekk biir Touba rek waaye da ko tabaxal mboolem ku nekk ci àdduna bi rek képp koo xamante ni da ngay sàkku xam-xam rek université bi sa université la day dellu ci li suñu doon wax naan bil Moustapha lii banal xuduusu madrasatan rek maanaam moom la suñu Muntaxaa déclare liggéey bi dafa jaar ci loxo yu bari waaye tey moom la yàlla def mu mottali ko ñoo ngi ñaan nag suñu borom yàggal ko fi mu ànd ak wér ba lépp lum naal ci université bi rek mu daal di taxaw ñun nag dañoo nekk élèves yoo xam ne euh, al azhar la ni jàngee al azhar bi nga xam ne Cheikh Mourtala moo ko taxawaloon da daa gën a ñaaxaat élèves rek ngir ñu mën a góorluwaat mën a takkuwaat dem jàngi ndax nit ki kat la feeg jàngul rek na jàpp ne xamagu dara ndax yonent bi day wax talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima saako xam-xam dafa nekk farata ci góor ci jigéen moo xam ne ay jullit lañ delloo waxaat ne itlubul ilmi walaw bi siin nit ki dafa war a sàkku ji xam-xam donte day dem sax ba siin kon nag la nga doon demee siin ñu indil la ko ba ci say tànk fii nga xam ne da ngay dox di ko gis kon yaakaar naa ne xam-xam yemb na waaw alhamdulilahi rabbil alamin di siyaare mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di siyaare ummatul islami bi di siyaare seen télévision bi nga xam ne moo di Xidma TV di ñaanal alxalifa Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te may koog wér yéeg-yéeg biñ ci am nag mooy yéeg-yéeg boo xam ne xam ne l'islam doole kootina amatina ndam ndax la suñu Tuubaa ñaanoon boromam yalla jëmmal ko ci nekkoog Cheikh Mouhamadoul Mountakha mooy lil Moustapha li baanal xudus madrasatan biha yadaalul asa wal jahlu wal kabaru te xam na ne sëriñ bi dundam gépp liggéeyal yàlla waaye tënk ko ci xam-xamul islam muy sariatul islamiya gi nga xam ne moom la ko suñu borom sàmmloo woon Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak mboolem njaboot ak sëriñ bi taxawal jëm moom loola ginnaaw bi ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké naalee ba tey mu egsi fii ci nga xam ne tey la ko ubbi di le 6 février 2023 di ñaan suñ borom yàlla ballu xam-xam yi xam ne moom la wax naan bi ummina xadijatin hablil amal fil ilmi wal adabi rabbi wal amal te xam-xam munta ñàkk ci lislaam ndax xam-xam mooy fondement bi jës yaa ayyuha subbaanu in xiftumoo xajal taaluman fa xadimoo ala amal yàlla def ci it li gën a tawféexe mooy na ko waajuram wa defee woon si Abdoulahan Mbàkke jël njabootu sëriñ bi la ko tàmbalee ci seex si nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi ak seenu njaboot ubbee ko ngir daara ji am barke xam ngeen ne mbooleem njabootu Sëriñ ak mboolem seex yi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi jël fa ñaar loolu nag lam ca jublu mooy xam ngeen ne baraka al baraka munta ñàkk lam ca lu mooy daara ji ginnaaw bi mu nekkee ci dëkk bu barkeel bi nga xam ne moo di Touba al mahrusa gi sëriñ bi waxoon ne ad'uka an taj'aluhu daaru tuqa wal ilmi wa diini wa daari irtiqa daara ji dana jëmmalaat ñaanuk sëñ boobu ndax suñ borom daa sëñ Tuubaa daa ñaanoon yàlla ne ko defal sama dëkk bi muy dëkk ragal yàlla waaye na ko def muy dëkk boo xam ne ci la ñuy jaar di yëg jëm ci yàlla daara ji bokk ci taxawaay yooyu xam ne li tuxrija sulumaati ila nuuri mooy day génne nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer kon dañuy wax ne sëriñ bi yàlla fayati ko amati na ndam ndam loo xam ne ndam lu rëy di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñ borom xafasahullah waraa di ñaanal Cheikh Mouhamadul Basir nga xam ne mooy xam day joram gis nga kàddu yooyu mu yëkkati di ñaanal président de la république moom it ji nga xam a di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi te am na wér ndax moom dala boom maamam ju baax ja ñaanoon yàlla zurriyatan tahibatan tujaddiju nahja nabiyal Mustafa tajtahidu sunu borom ba mottale na ko ndax li Serigne Touba bëggoon mooy ku génn nit ñi ci ak lëndëm tabal leen ci ak leer def ci seen xol iman def ci seen xol ak taalibe def ci seen xol pas-pas ak ñu jàng njàngaleem lislaam ba xam ko ndax sëriñ bi dafa wax ni waru naa ci yéen seen téere xam yi nga xam ni mooy seen farata jëmm di ko jàng ba mat waaye warloo naa bind gi ba du ngeen ko jëggaani kon lépp loo xamante ne nii ci ndamal xam-xam la Cheikh Mahmadul Muntaxa ca loolu la taxaw ci pas-pas bu dëgër bi mu toogee ak léegi ay ndami Serigne Touba rek lay wane kon dafa mel ni la maamam ju baax ja waxoon ni sunu borom may na ma lu mës a may kenn loolu laakaar na université bi bokk na ci ndax la Serigne Touba waxoon ni sunu borom tabaaraka wa taala dafa ma may may yoo xam ni bés bu set. mu feeñal daraja mu feeñal dara ci sama mbir ba ñëpp xam ni kéemaan ñëpp fi ne tey ku fi ñëw da nga naan lii de mënutoon a ñàkk ci yoon wi ci jamono ju xat jamono ju métti jamono joo xam ne jafe naa dajale dara nga man mën caa dajale 37 milliards jëmee ko ci lislaam ta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni faridatun sàkku xam-xam farata la ala kulli muslimin wal muslimaati ci jullit bu góor ak bu jigéen sàkku xam-xam farata la ci ñoom kon bu Seex Mamadu Muntaxa defee jiite ju tol nii gannaaw ba mu ci royee baayam bu baax ba Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ca yéen a ju rëy ja ca xam-xam bu bari ba waaye ca xam adduna te yaakaar naa yàlla fay na mu Mamadou Muntaxa waaye xolub Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne day xam-xam Sëriñ Bachiru day xam bu ñuy wax xam-xam da nga naan Sëriñ mooy xam-xam ndax Sëriñ Bachiru mooy doomi Sëriñ Tuubaa ji nga xam ni sëriñ bu mag bi moo ko yoral boppam fukki at ak juróom ci njaareem muy borom xam-xam boo xam ne mboolem téeréem mooy sukkandiku kaay bu mag a mag muy téere boo xam ni Minanul Baaxil Xadiim képp ku bëgg a wax la ngay wax am susulu am tegtalu kaay am dalil da nga jël ci Cheikh Mamadou Bachir kon yaakaar naa bu doomam ju baax ji toogee fii di Cheikh Mamadou Muntaxa matale ko ci matalin wu ama am solo l'islam bépp kii ci seen bopp ndax Serigne Touba li ko ñoroon mooy lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu xarraawin Ahmad dama ñëw ngir leeral ngirum yonent bi diinam jëpp mooy lislaam daal di wut loola la nga xam ne mooy yitteem jëpp mooy diine lislaam yitteem jëpp mooy ndolom yonent bi sallallahu alayhi wa ndax Sëriñ Tuubaa moo ne yonent bi moo ma sàkku ci yàlla raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimahu abdullahi kon bu yaakaar naa lépp da nga ci jàngawaat lislaam ndax lislaam nag mooy banqaas bi ndax muridullahi mooy kon nam ma jëm ci yàlla te murid dañ ko tënk ci ñett boo demee ci oqaa Sëriñ Tuubaa tënk na ko ci ñett tuuba li abdil muridin saadikin lëgumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyat kon yaakaar naa lépp ajuwaat na ci yàlla na ko yàlla fekkeloo yàlla na ci suñu borom def tawfiq sant sëriñ tuuba bu baax a baax di ñaan cheikh mouhamadul muntaxa yàlla yàggal ko fi lool ci sunu kanam noo ngi sant bu baax ndax lii dencab sëriñ tuuba bu ma waroon a eggale ci loxoom la ci weer loxoom la ko yàlla dogale mu yegg ci noo koy sant bu baax nag te ñaan mu yàgg fi lool lool lool lool mbàkke te saa yu nu xëyee nag di gën a ñaan rek di gën a ñaan rek murit yëpp seen xol sedd na adduna bépp seen xol moom daal lis ma lépp mëne sa wax wax lépp rek da sant rek loonu mën a def delluy sant rek delluy sant rek loo waaye wax rek te dul rek sant rek juum nga dañuy sant fu nu toll di sant Serigne Touba bu baax a baax Serigne bi li ci kanam te yëg seegut moo moo moo ëpp fuuf li si am na lu Serigne Touba waxoon lu bëree bari loo xamante ni bii Serigne Touba ba wax naan simaamil wara asri la daal laahi fii yaddi lii mandarga la ci tey ji te denc